سكينة بكل الجنة من دار من يعطى المنة la sëriñ Moustapha waxoon ne dañuy fas yéene dem ci élection yi ñu ñëw di feddali yóbbante boobu man nag li tax may wax rek mooy dañu bokk projet projet bi mooy tabax doomu aadama ma dégg nag université Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ne posé nañ première pierre bi fii man may jàngalekat tabax université boo xam ne am na ñaar fukki at ak benn ci ren bi ma déggee projet boobu man ne dafa nekk projet boo xam ne dafa méngoog ñun suñu programme ah li ñu indi fii nag mooy mébét bu ñuy ñaan mu antu mooy yore réew mi bés bu ko suñ borom tuddee projet boobu ngeen sumb muy université Cheikh Ahmadou bàmba du sax intere Sénégal rek wante intérêt àddina bi yëpp la comme intérêt àddina bi yëpp la nag dafay obligation pour ki fi yàlla di teg ëllëg mu bàyyi ci bëtam loolu daal laa buggoon a wax parce que dafa nekk projet bu nekk sama xol ñëw fii si mébét bi nga xam ni moom la am euh, dama dem si xalif général des Tidianes sama papa sëñ Mbaye xam ni sëñ Moustapha ka yar si loxo boppam sëñ Moustapha itam bàyyam Mansour moo ko yar bi mu juddoo mu tuddee ma ko kenn tuddeewuma Alaaji Malik kenn tuddeewuma sëñ Babacar mais sëñ Mansour doon ma tuddee ndax moo ko yar moom tam moo yar xalif bi ma dem ni ko dama bëgg nekk candidat mu ni ma candidat la man ko pour nekk président mu ni ma nekk nga président ba pare ma ni ko lu tax mu ni ma li nga am Macky Sall amu ko waaw soo génnee si mbedd mi koo taseel dafay tàll loxoom nga tëfli si loxoom waaw si miñaari daal làmb poosam lu mu am yaa ko moom soo ko ñaanee mu jox la soo ko ñaanul mu jox la mu ni ma loolu Macky Sall amu ko ma ni ko waaye Macky Sall am na lu mu am te man aw ma ko ma ni ko bërki démb dama romb palais mu waroon fa jaar ñu bloqué sama oto ñaari waxtu mënuma jàll ndax Macky Sall moo ko nekk ma ni ko sama Abdou Aziz daf daan wax naan su élection ñëwatee ñu ni ñëw jël réew mi di ko teg ci seen loxo nan ko seetaan parce que li may nekk nekk Abdou Aziz nekk xalif général des Tidianes Abdou juf bi su ko neexee duma ma génn dëkk bi ñoom am na nu doole bu nga xam ne bii suñu jëmee ci élection noonu seet ñi nga xam ni makaarimul axlaq dajale ci ñoom ñu dénk leen ko foofu nag la nu toll kër gi kenn mënul def dafa ci senegal te mënoo fi waaw li may wax euh, ulul baqiya euh, doomu mag ñi maam maram mooy mag mi doom yi mooy sëñ Tuuba ak seen Hajji Maalik yan xaw na anil fasaadi fil ard su fekkee ni nag ñu ngi jëm ba lu mel na président la république moom ñu seet ka mu bokk ci parti bu nga xam ne bii sëñ Moustapha bu sëñ Cheikh mooy président bi waaye mu joxoñ ka man tam parti bi ma nekk di bés du ñàkk Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha ñun ñaar ñëpp ñu bokk joxe waaye ñu yëg nii joxeñ bi du mët mukk tant que ñëwuñu fii wax leen ni ñun kii la ñu joxeñ sàkk wunu nag te ngeen wax nu moom la wala du ma nag am nañu droit sàkku si yéen ñaan ñaan jooju ni sa maam Sëñ Tuubaa moo ko fii bàyyi te amul sikk si nii mi ngi si yow ñaan jooju rek la ñuy sàkku bi may defar bés du ñàkk dama dem seeti sëñ Mansour ni ko damay ngénte bés du ñàkk dañuy créer bés du ñàkk mu ni ma kaay ma ñaanal la mu ñaanal ma mu génnee xaalis bu bari jox ma ni ma xanaa ku la jox njëgu añ d'accord na si li ngay def ma ni ko mu ni ma waaye des na ma ni ko mu ni ma sa maam ba sa Touba lii ngay ngénte ni mu si amee cër la si amee cër demal nga seeti ko ma ñëw fekk fi sunu baay Sidi Sidi Mokhtar mun ma yokk sama taab sëñ Moustapha ay seex ngeen waaye sëñ Moustapha sama bos moo la magee six mois bi ma ñëwee mu ñaanal ma waaw ni ma lii dem si am cor kon nag naa la ñaanal il mu barkeel loolu yëpp nag la ñu dajale moo tax sëñ bi ñu ñëw fii di sàkku ñaan ñaan rek la ñu soxla sëñ Modou bi muy nuyoole bi mu ko jot li nuyoo sëñ Moustapha ba ca gàmmu ga da ko ne noo ngi gën a jabootu mooy gën a delloo seen bopp ci njabootu sëriñ bi waaye sëriñ bi it noonu la wax Alaaji Isaa ne ko noo ngi leen di nangul bu baax ne ci njaboot ngeen bokk kon dama ne ñaari baat yu rek moo tënkaat li wax te loolu waxtu wu nekk ci loolu lañuy ñuy dund biig rek sëriñ bi dana yónni bis boo xam ne njabootu El Hadj ñoo ko doon def ci dëkk bi. Mhm. tase fa ak sëñ Sidi Ahmed. jàqalante bu mel bu rafet boobu rek lañ fa mhm. mooy mag ñi mësuñoo tàggoo. Mhm. ba leen yàlla booleeg bokk. boole leen diine ji. boobu lañ àndoon ngir yàlla. ànd googu ngir yàlla ba ndëgë ni ñi ñi ñi ñi koy donn ñi ngi koy donn di ko dundal di ko rafetal. ba ci sëriñ bii. dundal loola rafetal ko rek mooy yitteem. ndax sëriñ bi ni ko ñëpp di waxe diine lislaam rek mooy li ko ñor bu sañoon itam nit ñi xam ba mën a jaamu yàlla ndax lam ta alfan fa kayfa ta'budu wallaay kon nag ginnaaw da ngeen ñëw fekk fii li ngeen àndaal li ngeen fekk ko fi mhm. loolu kay day yomb lool mhm. ndax lu baax rek ngeen ngeen àndaal di ko wërsi fedd li coloré fi wërsi mhm. seen bopp ci biir njabootu sëriñ bi ngeen fi wërsi te fekk ngeen sëriñ bi nangu leen lépp noppi kon sant yàlla rek lay doon sëñ bi gën leen a ñaanal alhamdulilah ok sëñ bi nee na am na mbégte bu baax nag ci ci ci ci yéen waaw. xam na li nekkoon foofa xam na li nekk fii itam te nee na loolu rek moo leen fi béy fas yéene dundal te sax ci li sadinatan bi kullil janna min dari minan yaasal minna li sadinatan bi kullil janna min dari minan yaasal minna